bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen balu àq di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu jullit yëpp ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi di ñu saytaan moo xam ci biir réew mi la ak ci bitim réew di am mbégte bu baax rek ñëwaat ci seen émission bi di émission gàggantiku nga xam ne émission la boo xam ne dañ ci labiré di ci ñëw di ci borom xam yi di leen taatan Eh, ay laaj yu jëm ci wàllu diine eh, ngir ñu ngi ciy gàggante wala bind boo xam ne laaj nañu gàggante ko ci <coughs> ñu ci ànd ak eh, alxaalimul allaama di sëriñ Mbàkke Abdourahman di borom xam-xam bu mag nekk fii ci Daaru Salaam Ndaam ñu ñëwaat fii ci këram ngir fas yéene àndaat ak moom jataay bi tey jii nag suñu émission tamit di jëm ci laaj yi nga xam ne ñëw na fii ngir ñu fas ci yéene tontu. kon bala ñuy wéyal suñu kàddu dañuy jox euh, sëriñ bi mu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, aousubillahi min asheytan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain salaam wa taala wa barakatuh sëriñ Abdul Ahad maa ngi lay nuyu nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp ci ëttub xam-xam bi naa bu ñu siyaare Mawlana Cheikh Muntaqa di nuyu it baax waa daairatu muqaddamatul xidma ci njiit al imam sëriñ Afi Buso di leen nuyu ñëpp suñu sëriñ Abdul Xaadir ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp jotaay bi ak fu ñu mën a nekk uh-huh. di leen ñaanal ni nga ko waxee daayira muqaddamatul xidma bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk jumaa ji euh, seen seen bii di seen seen CMT TV euh, di leen defal émission bu am solo bii di gàggantiku ñu ngi nuyu baax sëriñ Abdou Khadir Bousso bi nga xam ne mooy réaliser émission bi ak euh, maanam sëñ Fallou Sey ak euh, ñi nga xam ne ñooy jàpp ci liggéey bi yëpp euh, ku mel ne sëñ Ablaye Lo ñoom ak bokk yëpp di leen nuyu. sëriñ bi nag ginnaaw bi suñu émission bi jàll nga xam ne daanaka fan yi bëriwul waaye bokk yi fu ne la ñuy wootee ak yónnee ay message di yónnee ay ñaan ak i sant ak rafetlu liggéey bi di yónnee ay laaj tamit laaj yu bëri am na ñoo xam ne wooye nañu ba Siin ñi Dubaay ñi Malaisie ba ci biir Afrique rawatina Sénégal fu nekk rek ci góor ak jigéen ngir seen diine yitteel gum leen yitteel di yónnee ay ñaan ak i ak i ak i ak i sant yu bëree bëree bëree bëri tax na li ñu fi am ci laaj bëri na lool waaye mbokk yi nga xam ne ñooy yónnee laaj yi ñu xam ne ni ma leen koy waxee laaj yi e, ñun émission bii di Moukhaddamatoul di def ci seen seen MKTV Moukhaddamatoul Khidma TV ci YouTube wala Facebook Euh, wala euh, ci ngeen ko mën a amee loolu nag su ngeen ci abonné incha allah euh, maanaam gàggantiku bu ñëw da ngeen ci jot ci saasa mm-hmm. amaana nag ñu ngeen koy jot ci yeneen i support am na ñoo xam ne ñu ngi koy dugal ci TikTok wala ñu koy dugal ci groupe yi wala ñu koy dugal ci yeneen kii ñooñu dañ koy jëlee ci scène bi di ko dagg di ko di ko yaatalaat di ko di ko yaatal kon Euh, bu ngeen jàppee na dañ leen a war a tontu ci group wala dara déedéet tontu wuñ ci groupe maanaam ci scène bi la ñuy tontoo kon képp koo xam ne bëgg ngaa topp émission bi daal da dàkk scène bii di GMT loolu jaadu nañu leeral ko ngir mbokk yu bëri dañ dañu ci dañu ciy entrepré waaye ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñoom bokk yooyu yëpp euh, kon sëriñ bi ñu tàmbali liggéey bi bala ñoo tàmbali liggéey bi it ñu jox leen benn numéro téléphone ngir képp koo xam ne am nga laaj booy laaj nga jaarale ko ci muy 77 678 57 66 77 678 57 66 boo jaaralee sa laaju diine eh, sëriñ bi dana ci jot incha allah dana ci tontu eh, kon sëriñ bi ñu jëm ci suñu laaj bu njëkk bokk mi dafay laaj mu ne ndax def na sartal eh, ki nga xam ne dafay laal kaamil wala mu koy yëkkati ci loxoom ndax sart la ci moom mu mu am taxaaratul xabas ak taxaaratul xabas maanaam mu laaj mu laab laaboog toj. ak ak laabug yére wala barab comme ni nga ko jàngalee woon ci sunu gàggante yi jàll loo tax muy laaj loolu jërëjëf sëriñ Abdou Lahad ñu ngi lay nuyuwaat di nuyu mbokk moomu uh-huh. waaw laab day ñaari xeet laab yooyu laab ci toj ak laab ci sobe uh-huh. laab ci toj mooy bu jàpp waree nga jàpp bu la sang nga sangu soo mënut yooyu nga tiim uh-huh. laab ci sobe nag mooy nga bañ a tax sobe sa yaram sa yére ak barab bi nga tax loolu charte la bu tax julli wér hmm. ñaar yëpp euh, bu dee laabu xadas nga xam mooy toj gi moom ab sart la mu la xam hmm. ku julli woon ba sëlmal sax fàttaliku ne laabutoon julli gi baax su ko mënta am hmm. nga xam mënta fexe ba laab julli da koy wàcc bu dee laabu sobe nag moom sart la ci wéru julli ci kaw nga man ko te fàttewu waaye ku sa yére taq sobe wala sa yaram nga fàtte ko ba julli ba sëlmal julli gi baax laab googu nag dañ koo sopp ci laalub bu dee ci julli moom fàttaliku te man ko charte la ngir julli gi baax waaw bu dee laal mushaf moom dañoo sopp nga laab euh, xabas laabu xabas mooy sa yére mu bañ a yére bu mu tax sobe sa yaram bu mu tax sobe bërëb bi nga nekk bu mu tax sobe bu dee nag euh, nga ànd akum jàpp moom ab sart la ngir nga mën a laal mushaf hmm. ba yoree njàpp rek nag te sa yére am sobe wala barab bi ndax danga nga jàmm bakkaar loolu jubloo xam sob dañoo sob ndax lu ñu sob hmm. bàyyi lu ñu sob du waral bakkaar hmm. dañoo sob nga laab-laabu xabas waaye nekkul loo xam ne boo ko deful da nga bakkaar hmm. bi laaj boobu leer na mbokk mi dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci julli ci jullit bi muy liggéey ci benn entreprise boo xam ne am magasin la dañ leen di dénk ay bagage gannaaw am na ko fi laaj laaj bi mel noonu bagage yi wute lañ leen di dénk waaye am ñoo xam ne dañuy bëgg di fa dénkaane ay bagages yoo xam ne dafay laal ci sàngara wala mu mu doon sàngara dal waaw xam nga sàngara moom niñ ko waxee woon ci jataayu weesu laal ci dara dëgg yàlla rëbb na ci fukki nit diggante ki koy jaay ak koy yarandu yóbbu ak kon ki dañ ci bokk na ci hmm. waaw julit du jàppalante ci mooy yàlla wala taawanu ala lithmi wal udwan hmm. te naanum ñoo lu mu yàlla la mm-hmm. kon jàppandal nit ñi bañ mën koo denc bu ñu ko soxla mën ko naan jàppalan ci mu yàlla la mm-hmm. te loolu dëgg mm-hmm. jërëjëf euh, mbokk mi dafay laaj mu ne kañ la ñuy yolomalal jullit bi maanaa kañ lay war lay war ci moom moom jullit bi ngir mu julli julli goo xam ne day da koy def njëkk waxtu wi di jot maanaam kañ lañ ko koy may daal la ci jubla wax waaw xam nga sunu borom daa wax ne julli yi daa am waxtu julli gu nañ ko war a julli ci waxtoom ay ruxas na di am ay woyofal yolomal loolu danañ ko maye ci julli yi bokk waxtu tisbaar takkusaan ñoo bokk waxtu ndax am na waxtu wuñ dajee woo xam ne mën nga caa julli ci tisbaar mu wér nga julli ci takkusaan mu wér ci misa gay noonu yooyu mën jot mu nekk di waaj a jóg nga xam ne bu sël mu lay tisbaar day dem te fa mu jëm ginnaaw timis la fay àgg kooku may nañ ko mu julli tisbaar bu nappee ci waxtoom jiital takkusaan takkusaan waxtam jotagut waaye bu mboole ko tisbaar loolu may nañ ko waaye na fekk nag loolu moo wax day def daane ci tukki te fa jëm bala fa bu ko leeree da nga ci yoon wi balaa moxtaarum takkusaan a jeex amut sañ-sañu di julli ci takkusaan te waxtam jotagut timis ak dee noonu timis jot na mu julli timis war a dugg la muy dugg te fa jëm bala fa àgg fa jot kooku mën na bu jullee timis julli gee nga xam ne gee ak takkusaan mën nañ leen a yéegal ci waxtu leen jiitu nga xam ne dañ leen di julli njëkk seen waxtu waaye nag ab tukki moo ko tax nit ki sañ bu dul tukki moom kenn sañu ko waaw bu dul tukki kenn du ko sañ kenn nga ne ci barab moom da ngay julli ci waxtam li nga sañ daal foofu mooy boole ay julli am lu ñu tudde boole loo xam ne ci kaw gi boole la waaye da leen leen jullandoo hmm. waaye kenn ko ci waxtam nga ko julli ci misaal takkusaan ñu ne ngi jot hmm. ñeenti waxtu bu tegalee fukki mën teg juróom ci misaal hmm. nga bàyyi ba takkusaan des ñeenti minute mhm. nga daal fay julli tisbaar maanaam bi ñuy sëlmal tisbaar ji la takkusaan dugg te fekk tisbaar jeexagut waaw ah, muxtaarum tisbaar ndax des na mhm. ndax fi muxtaarum tisbaar jeexe fa la muxtaarum takkusaan tàmbale mhm. donc dañuy wax sax duggante na ñeenti rakka waaye daal waxtu takkusaan li tee mu des mooy ñeent mu jot mën na ñeenti rakka nga tàbbal fa ñeenti rakkay tisbaar kooku dangaa julli ci mujjum muxtaarum tisbaar ak njëlbéenu muxtaarum sa kon day mel ne ñaari julli boole nga leen waaye loolu la ñuy tuddee aljamoo as suuri hmm. mooy da ngeen boole ci kaw nii ci melaw waaye fil xaqiqa boole woo leen hmm. ku ne ci muxtaar ma ko julli hmm. loolu mën nga def mi sa géew loolu moom li lay rek mooy nga lul julli ci bopp waxtu ndax ba tisbaar jotee nga julli ci bopp waxtu yi moo gën nag waaye muxtaar moom foo ci julli baax na amoo bàkkaar amoo yedd waaye nag donte jullit bu ne moom euh, xadis boo wax ne euh, ci sëñ waalam bi anna afdala taa'ati salaatuna fi awwali al-awqaati waaw xadis moo ci indi ne julli ci bopp waxtu moo gën ci julli yi kon loolu rek moo moo koy faat nit ku tayel nit ku sonn wala yu mel noonu wala ku wéradi nga xam ne yëngu bari baaxu ci moom moom mën nay def noonu man na tisbaar takkusaan day di julleendoo fi muxtaarum tisbaar di jeexee lay tàbbal tisbaar bu sëlmalee takkusaan jot mu julli nga xam ne day jàpp benn yoon yëngu yi benn yëngu lay doon loolu dana baax loolu ci koo xam ne dañ ko tere yëngu bari ki bi seggee mu bàyyi ba li timis jot des ñett rakka mu julli fa timis li tee bu sëlmalee gee jot mu julli ko baarakallaahu fiika euh, sëriñ bi jërëjëf euh, kii dafay laaj mu ne lan mooy atteb ku nga xam ne dafa bàyyi xunuut ci ci jullik suba al xunuut xunuut ci mazhabu Malik dañ ko sopp ci jullik suba ci ñaareel rakka ba ginnaaw boo jàngee fàttee ko saar njëkk nga yoru ko hmm. donte boo ru ko ba noppi mën nga ko def waaye kum faat nag faat na dee su sujootal ndax luñ sopp la hmm. bàyyi luñ sopp nag du waral bu ko sujjootalee sax xabla salaam julli gi day yàqu oh. waaw bu ko fàttee moom dara topp ko hmm. li gën nag mu def ko waaw waaye nag bu ko fàttee woon dara nekk hmm. donte moo ko tey dara dara nekk ci donte moo ko tey bu ko bàyyi woon te tey ko sax hmm. lu tax mu di ko sujjootal ndax luñ sopp la jërëjëf sëriñ bi kii def ne moom lan mooy atteb euh, ki nga xam ne dafa wàcc soxnaam xam naa moom nee na daal wàcc na soxnaam ñaari yoon waaye ñaari yoon yi mu ko wàcc <coughs> ay kilifaam yëg nañ ko waaye nag daf koo wàcc ñetteelu yoon waaye nag moom ak soxna si ñoom ñaar kese ñoo yëg ne waccante nañ mu ne ndax loolu day tàbbi parce que ñetteel bi day tàbbi wala su tàbbee ndax loolu dana dagan ci moom mu fay la ji wala mu mën ci jotaat lu dul baax da saw ji xam naa la ci jublu sëñ daal kooku fase na soxnaam ñetti yoon hmm. fase ca seere waaw li mu doon wut prox ndool damel de la <laughs> ah. bëgg waaye foofu foofu du prox ndool <laughs> ah. kooku na xam ne fase na soxnaam ñetti yoon hmm. bu soxna si idda ba idda ji yeex yàlla doog moom benn borom kër hmm. ñu jaxasoo yàlla dogal ñu tàggoo mu iddawaat ba nag bëggaate ñëw ngoro si waaye fii boobu mënut ko takk moom ndax sartuñ ci ne faaw passé mi nit ñi dañ koy yëg mu door ba hmm. yow mi wax moom saxal na ne fas na soxnaam loolu rek moom bu ko soxna si yëgutoon sax te bi tas léeg-léeg ba ma lay ku ko seede jur ko seede yàlla ko <laughs> ah. ak ak gëm fekkee gëm na ne fase woon na ko baat wax rek baat boobu wax loolu day saxal loolu euh. wax nañ ne xaalis ma jaxate radiyallahu anhu hmm. di pexe la comme nit mas naa fase soxnaam weddi hmm. na xam naa mu toog loolu yàgg mu ne mu ne mu wax ñett andoon ak soxna si daal fan la ko fase nee na hmm. mu tudd ko daal ab barab moo ne ko demal garab goo fa nekk nga dagg coo xob ma misaal lu ko mel noonu nee na mu toog ba mu yàgg rek mu am xaalis génn daal ana ki fase soxnaam ah, mu ne ko maa ngi nii mu ne ko dog na ah. <laughs> loolu mu ne xam euh. na ne fase woon na ko ah, loolu la a xam te borom koo xam dëgg la ki wax ne euh. ba fase kooku fekkee hmm. kon saxal na ne fase woon na waaw moom de kon moom na xam ne moom fase gi moom ami seede ak amuti seede moom am na ñetti fase am solo mu digg mu yàlla bu mu doon seede nag te weddi ko hmm. ci saa xel hmm. mën naa dem ñu attel jox ko soxnaam waaye nag yéen daa waxoon ne attee du du dagana lu aramoon mhm. képp koo xam ne ñëw na gën a ëw réewu làmb ba mu attee ko mel ni mu am dëgg mhm. te fekk amul dëgg it bu dee alal la sawar lay lekk mhm. waaw loolu dama taxamit léegi da nga dem ci yoon ëpp pexe dàqal dafi pexe ba atte mel yaayee ba la nga doon xëccoo jox la ko waaye ci dëgg-dëgg mu moo ko na nga xam ne léwu la kon nit it mën na ne fase naa weddi ko kenn fekkiwu ko ñu def yoon moom ci ci expert lay sukkandiku kenn fekkiwut dañu wax ne ko kon de sa dëgg yàlla léegi nag moom waaye xam na ne digg mu yàllaam fase woon na ko hmm. ndax ne bu la jaxasoo ndaw si it ñaar mu yàlla ci njaaloo aliasubillah jërëjëf sëriñ bi kii dafay laaj mu ne ndax dana daggan biral euh, ay naafila ginnaaw timis maanaam daf ne daal julli na timis ba noppi di ca teg di cay baaxoo di teg ay naafila yu bëri ndax dana naafila yooyu dana daggan ci moom mu beral ko wala da koy yelu waaw xam nga naafila dañuy wax ne julli guddi yi yëpp hmm. dañoo sob ñu leen di beral naafilay guddi yi guddi nag mu ngi tàmbalee bu jant bi sooyee ba fajar jot fajar xasee jot bëccëg tàmbali na moo tax ñaar rakkay fajar julli bëccëg la mhm. moo tax dañ ko yeru mhm. waaye boo sëlmal timis ah julli yooyu nga julli ak gee guddi gi lépp loo fay julli dañoo sopp ñu bëral ko bu dee naafilay bëccëg dañoo sopp ñu di ko yeru mhm. te ginnaaw timis fekk na guddi tàmbali waaw bu jant bi xasee sooyee guddi tàmbali fajar moo ci bokk fajar xasee jot bëccëg tàmbali na waxta ñaar rakkee fajar dañ koy waaye boo doon julli ay rakka njëkk njëkk ñu noddu salaatu xayma naw bi lañ ko sopp mooy nga bëral bu dee naafila bëccëg nag te àndut ak xutba dañoo sopp ñu yelaw mooy yi njëkk tisbaar ginnaaw tisbaar njëkk takkusaan julli yor yor yooyu yëpp dañoo sopp ñu di ko yelaw ak ñaar rakkee fajar waaye bu dee ànd ak xutba nag ni ki ayit ak yooyu dañ koy bëral moom jërëjëf <coughs> mbokk bi dafay laaj mu ne dafa bëggoon xam nga wax ko nan la ñuy joxe jullit bi aw tur ak it <clears throat> diggante bi nga xam ne daal gis na ne dañuy nekk di ngunu ngunu ba mu yàgg ñu ne bismillah ñu gis ñu rendi mu ne diggante boobu ban diggante la waaw xam nga yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku am doom mhm. te am am tudd am xar mhm. gàtt mhm. wala mu yaakaar ko sopp nañ nag ba ci juróom ñaareelu fan ba mu rendi gàtt ba tudd doom bi wat kawaru bopp ba xool nu mu toll ci xaalis mu saraxe ñett yooyu ci juróom-ñaareelu bis bi lañ ko sopp bu fekkee ne am nam xar wala mu yaakaar bu amutum xar yaakaaru ko fenn nag bu doom ji juddoo mën na ko tudd ci saasama mu jeex waaye bu amee wala mu yaakaar ko day nekk juróom-ñaareel bu ñaareel juróom-ñaareel ñëwee lam yaakaaroon am xar ma ñëw na kon dañu rendi xar danañ ko jox tur danañ wat kawar gi bu amut it mu def yooya xam ne wàcc na wàcc na. boo amul xar du ko tey def loolu. du tey mu tudd. Hmm. moom juróom-ñaari fan yi bu yàlla dogalee xar ma ñëwati na ko tudd rek mu jeex kon wàcc na ko hmm. su ko defee nag yooyu xëy na nit ñi liñ baaxoo def fii dendale gi li am solo rek mooy ci bis bi nañ rey am xar ngir xale bi nañ ko ne tudd nañ la nàngam nañ wat kawaram <coughs> tudd gi nag àqi waajur la bàyyi àqi baay la hmm. wax ne tudd naa ko nàngam hmm. sopp na nag buñ koy def no nodd ca noppum nday joor ba li xaam ca nopp càmmoñ ba tifli tur wa ca a dajal hmm. la ca gën nag mooy nga wax ne tudd naa la diw baa boobu buñ ko waxee ndànk it wax ko ca kaw bu noppee ñëpp xam ne fi nekk dem seere neen lañ ko hmm. tuddee bu ko defee loolu mooy tudd gi loolu nag eh, léeg-léeg am nañu saxal ne mën nañoo wat kawar gi ko tudd nañ koo tudd wat kawar su ko defee dandi gàtt bi xëy na dandi léegi ñu sasaloo ngir ñu xam ne moom nii moom lañ rey moom lañ rey gàtt bi hmm. moo tax ñu wax ne tudd nañ bismillah waaye daal li am solo mooy bisu juróom-ñaareel boobu dañ ko defal ñett yooyu. lu ci nekk nag yooyu mën naa jiitu. mën nañoo rendi xar mi tudd ko mën nañ ko tudd rendi xar mi mën nañ ko wat tudd ko mën nañoo tudd wat. kon daal moo xam ne loolu mu dégg ñu ñu naan bisimilah moom. amul amul waxtu. bisimilah ji mooy ne xëy na buñ xasee. joxe tur yi joxe nañ tur yi ba noppi. waaw suñu xasee wax tudd nañ ko nangam kon mën nañoo defar gàtt bi. Mm. dañ bëgg a wax. Mm. dañ jublu bu dee yooyu nag léeg-léeg yu bari yi mel noonu di ko yaru. Mm. baax na dëgg la waaye bëri nañ ko moo gënoon. Mm-hmm. ndax xam nga noor gi dañoo sopp doom bu juddoo rek mu hmm. njëkk a dégg kalimatu tawhid moo tax noddab li xam gi njëkk a sopp mooy fa mu juddoo fa mu rote rek hmm. waaye day wane solos jigéen ñi nga xam ne ñooy rawale ay gone bu ñu jàngal leen lu mel noonu nga xam ne fu doom ju nekk eh, fa di sarxoole ak yeneen ñu yëkkati kàddu yàlla hmm. nga xam ne kàddu gi xale bi foofu gisul mënu ko di gis waaye dana dégg moom ñu yëkkati kalimatu tawhid kooku day am yaakaar ci màggee ku wéetlu yàlla leen jërëjëf buñ koy tudd it ñu def noonu nañ noddu kalimat yépp mu dëkku ñu ne ko tudd nañ la nangam loolu lañ sopp la mm, jërëjëf euh, noddu ni ñu nodde xam ni ñu li xam ci jàkka yi rek waaw ah, daal ne tudd la nangam daal ne bisimilah euh, loolu leer na jërëjëf euh, mbokk mi dafay laaj mu ne lan mooy atteb ki nga xam ne dafa def bakkaarum njaalo ci ci weeru koor maanaam guddig weeru koor mu def ci bakkaar boo xam ne njaalo la mu ne ndax bakkaaram boobu day yàq weer wi mu woor wépp walla nan lay def ak bakkaar boobu waaw xam nga bàkkaar moom bàkkaar la uh-huh. waxtu wuñ ko defee nag dana tax mu gën a rëy uh-huh. ramadan ci la bokk daa bokk waxtu yi màgg nga xam ne tuyaaba dafay fulu uh-huh. waaye ñaawteef dafay gën a rëy kon njaalo ci boppam ñaawteef la bu rëy rëy sax nag dafe ko ci ramadan it beneen ñaawteef la waaye nag ñaawteef la bu baru masal tey bu fekkee ne woor na ba ngoon mu dem mooy yàlla ci guddi gi sangu na xëy wooraat na koor ga dañ jàpp ne woor na bakkaarum njaalo ne fa muy koo xam ne bu fekkoon ko sëñewu la te lislaam taxaw dañ ko rey dañ ko rey nag am na am na paset mën a tuub ndax bàkkaar na lu mu réy ko jàmm tubee te tuub ga seel yàlla jégal ko hmm. waaye nag lu matta moytu la waaye du tax kooram yàqu tax koor yàqu moom bu doon bëccëg nag la ko def moom ci ramadaan woor ba noppi def ko moom koor gi day yàqu mu war a fay bis war a kafaara macha allah hmm. bu dee guddi gi moom euh, ni araame ci yeneen yeneen bis yi rawatina guddi gi ramadaan moo gën a màgg yeneen guddi yi hmm. kon bàkka ba day gën a rëy mm. jërëjëf sëriñ bi mbokk mi dafay laaj mu ne dafay dégg ci lenn ci e, nit ñi wala ñi nga xam ne ay waxkati lu baax lañ ñuy joxe ay ñaan wala ñuy joxe ay julli e, ay limi yoo xam ne naan la soo ko defee e, danañ la jéggal say bakkaar yépp mu ne ndax loolu bakkaar yi xam ne ay kabair la ci ñaan yooyu ñu joxe ak julli yi ak yooyu noonu ñuy def ndax bakkaar yi kabair moom loolu mën na koo far wala wala déet waaw koy sëñ Abdul Ahad bakkaar bu mag bakkaar yu mag yi waaw tuub mooy tax ñu jéggal la yi nga dégg ci wax ne ko daf ñu jéggal ko bakkaar bakkaar yu la ci jub bakkaar moom boo mooy tooy mag yi ñu jéggal la ko yenn jëf baax yi boo defee ñu jéggal la man saama ramadaana imaana wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zambi yooyu yëpp bakkaar yu ndaw tax ñuy wax waaye bakkaar bu mag da nga koy tuub ñu doon la ko jéggal bakkaar bu mag mooy mooy njaalo ak bakkaar bu mag yu bari la mooy dañuy wax ne bépp bakkaar boo xam ne rek bu yàlla rod na ca hmm. wala yàlla mele la ko lu rëy la loolu bàkkaar bu mag jàll ci la bokk bokkaale yàlla ci la bokk euh, dog say mbokk ci la bokk hmm. ak ñaawte fi yëpp ak yi nga xam ne ni ay xadd da caa ron hmm. sàcceeb yëpp ay bàkkaar yi mag lañ hmm. moom am na ci yoo xam ne sax du tuub dong waaye wala boog tuub sax day yaatu ndax tuub ga day làmbaale delloo ak parce que tey ki sàcc mu siif ko euh, ak tuubam mooy jéggulu yàlla rëccu ko du ko defati waaye delloo waaye du rek def na ay rakkaay yu mu julli wala jàng na ak ñaan ñu ne jéggal nañu bàkkaar yi bàkkaar yi ndaw lay lay lay jërëjëf sëriñ bi euh, euh, kii dafay laaj mbokk mi euh, soxna la mu ne moom daal dafa xëy tëj ci këram tëj néegam dem liggéeyi bi mu liggéeyee nag maanaam menn mbokkam la fa bàyyi ak ñeneen ñu woo ko ne am na sàcc bu dugg ci biir kër gi nee bi sàcc bi duggee ci biir kër gi nag dafa jubali néegam bim du bim jubalee néegam ubbi bunt bi am na ab euh, wali suum defoon ci ron lalam mu seet ya fa nekkoon ci ay mbir yu am solo yoo xam ne ay mbiri boppam la ay xaalis ak ay takkaay mu jël ko waaye mu gis ne laalu fa laneen lu dul lu dul loolu maanaam loolu lan la bëgg xam ba xam lan la ko ci lislaam wax kooku di xanaa liñ ko xelal ne dem police waaw bu demee ñoom seen xam-xam àcc na jëm ci enquette mhm. ñu ngi enquêté ba xëy na mën nañoo dox ba gis ki ko sàcc na ñaan yàlla daal bu gënee ci moom wala muy wërsëgam yàlla jotal ko ca waaye mu dem police nag police daf seen liggéey. Hmm. waaye lislaam mayu ko mu koy jiiñ kenn moom. déedéet ndax jiiñ moom dafa wóor. dina ku mu doon. li nga man rek mooy man ngaa dem wax ni mu demee ñooy nag comme loolu seen liggéey jàng nañ ko def nañ ci ay tàggatu man naa am darañ dox ba indi la waaw waaye mën naa ñaan yàlla daal moom. Hmm. yàlla delloo sil ko alalam. Hmm. bu fekkee ne mu gën ci moom. mu bàyyi xel it ne alal ji nga moom sa wërsëg nag yàgg yow da ko ñàkkal. maanaam mën na ko moom te du wërsëgam mën nañ ko sàcc mën na réer mën na nang mën na nakam wërs doomu aadama wërsëgam dong lay lekk moo tax lu mu ciy wuti it def ci sago ndax bu fekkee alal mu jëm moom te du wërsëgam it nag pexe moom ma nga defee duñ xëy na mën na mbokk yi mu bàyyi ci kër gi xëy na moo tax uh, waaw xam nga loolu lépp ndax ne alal am na solo waaye nag mbokk gu yàqu hmm. ndax bu demee ba ba jiñ leen ko te du ñoom hmm. la muy yàq alal jëru la la muy yàq alal jëru kon na dem ci yoon wax leen li mu demee ñoom bu ñu defee seen enquête yàlla mën naa def gis jërisit nag na ñaan yàlla bu gënee ci moom mm-hmm. gënul ci moom na am ngeen bañ dara fekk ma gën ci yéen mm-hmm. léegi ñu ñàkk alal fekk ñàkk a gën ci moom bu sëriñ bi mbokk mi dafay laaj mu ne ndax dana war ci maamoom bi jàng faatiha eh, ci ginnaaw imaam maanaam faatiha imaam rek dana ko doy walis moom muy jàng faatiha moom maamoom ah, maanaam mooy ki topp ci ginnaaw imaam di julli mm-hmm. ndax moom day jàng faatiha wala day doyloo faatiha bi imaam jàng rek ci maso masaba malde bu dee julli bérél dañoo bëgg maamam déglu njàngum ilimaan mooy doon jàng bu dee julli yàllu nag sopp nañ mu jàng fàtteeku sa sopp la yamit bu ko defatoo ilimaan gàddu na waaw nga doon dend ak nit dégg imaam bérél ba noppi ba fàttee ba noppi nga dégg muy jàng fàttee waaw xam nga daa am ci yeneen ngër yi lu mel noonu wane ne moom eh. bu imaam day jàng da nga koy déglu waaye hmm. malik njàngum imaam day yóbbaale njàngum ma hmm. cellantuk maa moom xala ci ci ci njàngum imaam léegi nag déglu lañ ko sant déglu googu nag hmm. day jàng bopp day mel ne kuy jàngal boppam jàngale mbooloo hmm. moo tax bu dee julli yàlla moom sopp nañ mu jàng fàtteeku saar waaye sopp la muy tam waaye bu ilimaan jàngi fàtteeku saar mu roy ko ànd ak moom ba sëlmal julli ga wér jërëjëf sëriñ mbokk mi dafa laaj mu ne ndax dana ci jullit bi buy julli nee na eh, dafa julli ba àgg ci di taaye xam nga dafa mel ne dañ lay wax mu yëngal baaraamu sànnikaayam waaye nag yàlla dafa dogal eh, ci biir baaraam yooyu muy yëngal moom amul baaraamu ndeyjoor dafa handicapé ba tax baaraamu càmmooñam lay lay yëngal buy taaya mu ne ndax loolu lislaam sant na ko wala de waaw loolu day xam naa ci masala yi borom xam-xam di wax ñaari wax la mhm. ñu wax ne loxo bu ci nekk daa am lu ñu ko sant loxo ndeyjoor dañoo sant nga teg ko ni tàllal loolu moo ci sunna loxo càmmooñ nday joor ngay def nii banque yenn yi tàllal sànnikaay bi hmm. ñoom dañuy wax nag ne bu fekkee ne amul baara loxob nday joor loxob càmmooñ bi du ko yëngal ndax sunnaam mooy tàllal hmm. kon na ko defal sunnaam waaye mu bàyyi sunnay loxo bi ngir bëgg a dundal sunna si xam ne amu ko hmm. comme loxob nday joor lañ na ko foofu kon li gën mooy loxob càmmooñ bi mu tàllal ko noonu donte nag am ñuy wax ne moom man la li mu doon def ci loxoom ndeyjoor mën na ko def ci càmmoñ mm-hmm. kon jàppal naa lu ci waay def am na fu mu tegu mm-hmm. lu ci waay def rek am na fu tegu bu ko neexee ne bañ koo yëngal bañ koo waaw ndax ja ñu jox ne sunnaam mooy tàllal mm-hmm. sunna si mooy tàllal kon def na sunnaam ci bii ndax su bàyyee ñu wax loolu su bàyyee loolu day mel ne loxo bii mënoon naa def sunnaam defu ko bii nga xam ne moom lañ sunnaa lu yëngal ko moom amu ko kon yàlla yàlla tëb ko yàlla tëb kenn lu mënul dëgg la jërëjëf mbokk mi dafay laaj mu nekk euh, lan mooy àtte ki nga xam ne suy julli daal du lu maanaam xelam maana daal balaa mën xalaat mbiri àddina dëgg na moom dafa kàbbar moom daanaka ci lay lijjantee mbiram yëpp mu ne kooku luy xam nga julli nag la ci gën mooy teewlu moom maanaam ñàkk teewlu julli du tey ci zahir moom boo dafee yëngu yi ni nga ko war a dafe moom charan julli nga kenn du la wax ni baamul julli waaye yiw wi ñuy séenu ci julli ak njariñ li ñu ciy séenu moom nañ ci teewlu bu fekkee ne moom dangay ngay julli te teewlu woo dara moom jàppal na mën naa am tuyaaba ji lu bari waaye nag bu fekkee nag ponk yëpp matal nga ko li nga war a jàng lépp jàng nga ko dañuy jàpp ne julli gi baax na oh. waaye nag fexe bay teewlu bokk na ci li nga xam ne tax julli gi jeexit gi ñuy sooyee julli eh, mu jeexital ci yow oh. yitteelu nag hmm. ndax xoshoo ci lay feeñe hmm. waaw donte nag dana jafe lool nit ki wax ne day téyam xelam léeg-léeg it nga dégg ñu lay wax ne ci biir julli ci lañ def nangam ak nangam. na bu dee loo xam ne ci mbirum diine la jëm moom wàññiwul dara. te yàqul li nga doon def. bi ci des it nag dañuy wax ne bokk na ci lu dimbale nit ci mën a teewlu bu julli. mu bàyyi xel li muy jàng. waaw buy jàng fatiha muy teewlu maanaam fatiha. aaya wala saar muy jàng mu teewlu maanaam buy ko baa di muy wax mu teewlu maanaam yi. loolu mën na koo dimbali ba xel mi du dàngang di xalaat yeneen. jërëjëf sëriñ bi xam naa ñu jox la kàddu gi nga tàggatoo mel ni liñ ñu cërale woon ci waxtu jeex na. jërëjëf sëriñ Abdoulaye ñu ngi dellu di nuyu mbokk yi nga xam na ñu ngi teewlu jotaay bi yëpp di ñaanal. di ñaan yàlla eh, jariñ ñu ci li ñuy def lépp. barkeel yëngu yi te liñ ci séenu ci njariñ ñu jot. di rafet lu baax it nag mbokk yi yittewoo jotaay yi ak yittewoo laaj yi. Mm-hmm. ndax am na solo ci ab jullit mu bàyyi xel diineem. Mm-hmm. bàyyi xel diineem. ndax diine yi kenn du ko làmb lu ci ngeen xamul day laaj yàlla kenn du ko jaamu ci làmb am na solo yàlla yàlla barkeel ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp den siyaare asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah euh, sëriñ Mbacke Abdourahmane euh, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom defal tawféex ak taysir te gën a yaatal sa dënn ba ni nga tabee ci joxe xam-xam ak laabire bokk jullit yi ci seen diine suñu borom gën laa kàttanal ba nga gën koo man ñu ngi sant it bokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ñoom ñëpp di leen xamal ne laaj yi li ci des bëri na lool képp koo xam ne déggoo sab laaj mën nga koo taaxirlu ci chaîne bi di MKTV wala GMT TV muy chaîne wala Grande Mosquée de Touba TV hmm. incha allah laaj yëpp dañ leen tontu waaye nag euh, euh, waxtu nekk ak liñ ko cëral hmm. kon su ko defee ñu bañ a yàkkam te topp ko foofu rek danañ danañ gis seen seeni tont i allah ñu ngi sant bu baax sëñ Abdou Khadir Bousso mi réalisé émission bi ak sëñ euh, Fallou ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ñëpp di leen dig daje incha allah ci seen beneen jataay euh, jataay boobu it nag euh, képp ku ci bëgg a def ab laaj tamit rek mën ngaa wootee wala nga yónnee message WhatsApp 77 678 57 66 su ko defee sëriñ bi dana jot ci laaj bi dana ci tontu ñu ngi leen di dig daje ci beneen jataay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh